2012 à 2022 Macky Sall dix ans de pouvoir mu nekk rek daal ab njiitu bu bi nga xamante ne lim fi daal di def fi mu jëlee réew mi fum ko yóbbu ak fi ko jëmee mu nekk ay étapes yi nga xamante ne jëwriñ gu ñu dénk wàllum économie ak budget moom mii mu ci indi ay leeral. laaj gu sampu yan ñooy ay réalisation président Macky Sall. ca loolu rek daal suñu njàngat mu ngi dox ci ay réalisation du président Sall. ci plan économie sociale ak li nga xamante ne moom la ñuy woowee perspective ci loola ñu ngi jël benn ci li nga xamante ne moom la daal di tàmbalee. ci fàttali dong le président Sall moom moo nekk ñeenteelu président ci mim réew mile muy tàmbali rek daal depuis bi mu daal jëlee réew mile lu gën a bari dafa daal di yokk fu mu fekkoon benn def na fa fukk wala lu ko ëpp. ci ab politique économique waaye tamit ci ab renforcement du cadre macroéconomique ci loola muy lu njëkk am depuis 1980 ci dëkk mili ñu daal di enregistré ci lu toll ci 6,6 pour cent ci croissance économique waaye tamit ci dëkk bile ci période entre 2014 ak 2018 waaye tamit mu nekk contre 3 pour cent ci période antérieure de 2009 à 2013 chiffre yi ñu am ci suuf mën na ko firndeel de 2009 mën nañ am 2 virgule 1 pour cent 2010 ñu am 3 virgule 6 pour cent 2011 ñu am 1 virgule 5 pour cent 2012 ñu am 5 virgule 1 pour cent et 2013 ñu am 2 virgule 8 pour cent lépp rek ci croissance économique waaye xool leen li ni mel entre 2014 et ci taux de croissance bi nga xamante ne dépassé na ba àgg 6 pour cent nag mën nañ lim ne entre 2014 6 virgule 6 pour cent 2015 6 virgule 4 pour cent 2016 6 virgule 2 pour cent 2017 7 virgule 2 pour cent et 2018 6 virgule 8 pour cent ñu sukkandiku ci dëkk bile maanaam taux de croissance en 2021 ñu mën a xaymaa dynamique économique bi maanaam l'activité économique ba taux bi yokku ak croissance de 6,1 pour cent mooy ay activité ñu nemmeeku ci ay relations entreprise waaye tamit ci cadre relation économiques ak ay révision de plan d'action tax na ñu mën a sukkandiku rek daal ci l'économie sénégalaise ci rekk daal ay insertion grandiose ci ay chaine de valeur mondiale ba tax na mu yóbbu croissance bi ba 4,6 pour cent ca noona ñuy xam ne rek daal Covid 19 bi daal di dugg Sénégal muy ab crise sanitaire gi nga xamante ne lii na fi depuis 2020 waaye tamit ñu mën a xam ni ci conséquence sénégalais yi ak nim ci daal di taxawoo. ca loolu rek daal mën nañu sukkandiku ci li nga xamante ne moom lañ daal di gis ci état adduna bi yëpp ñëpp ñu ngi woon dans le noir maanaam ñu gën a bari dañu woon seen loxo yenn relation yi. commerce interne externe exportation importation ak ni ni ba tax na dëkk bu ne tey sa waaye Sénégal gi lee góorgóorlu na ba am ci lu toll ci 1,3 pour cent ci croissance grâce rek dal ak programme bi nga xamante ne teg nañ ko muy programme de résilience économique et sociale naka noona en 2021 activité économique bi reprendre ci nag ci taux de 6,1 pour cent ci ay valeurs environnementales waaye tamit ci interne ak externe yépp ñu mën a conclure ne activité entreprise yi reprendre tamit fluidité économique bi fi daal di amoon lépp doxaat comme ni mu ko waree. te ay laaj gu samp gu ñu daal di laaj lan mooy BIP produit intérieur brut foog ñu xam ne alalu réew ni ñu koy évaluer ci ay richesse muy ay produits yu mu daal di réaliser ci territoire am en deux ans. ca loola rek daal alal googu yëpp ñu daal di ko woowee BIP muy produit intérieur brut. waaye tamit en 2020 ñu daal di xamle crise sanitaire gi moo daal di tax ay flambée des prix yenn yi itamit daal di yokk bax bu mu jéggi dayoo ñu gën a bëri itamit di laaj ndax état bi def na ci ay jéego muy tontu gilee ñu mën a xam ne mbas mi bi mu daal di ñëwee ba tey ñu gën a bëri itamit ci ay dëkk dañoo daal di nànk seen loxo. ndax lan ndaxte dem beeg dikk bi jafe na ci commerçant yi lee ba tax na ab programme gi nga xamante ne tegal nañ muy rekk daal programme de résilience économique et sociale ba tax na liñ ci def ci koppar mën nañ koo xayma ci 1000 milliards ci suñuy koppar ñu ñii maanaam 1000 milliards de francs fa ñu xayma ko ci BIP muy 7 pour cent waaye tamit li nga xamante ne moom mooy déficit budgétaire gilée ñu daal di ressortir ci lu toll ci 6,1 pour cent ci BIP bi waaye tamit ñu mën a xam ne ba tey jii ci inférieur à 2011. nag ñu mën a xam ne ab góor la bu baax ndax dëkk yu gën a riche itamit xaw nañ am ab jafe-jafe ci mbas mile naka noona en 2021 itamit ñu daal di seetlu ne budget bi mu ngi diggante 6 virgule 3 pour cent ci BIP bi waaye tamit mu am ak augmentation de 3 pour cent ci facteur clé maanaam ci lutte contre la troisième vague ci Covid 19 gile waaye tamit ci conséquence de couverture vaccinale bi nga xamante ne askan wi le moo ko waroon jël jëmale ko ci mbas mi le lu xam ne tamit lu nekk enjeu bari na lool ba tax na programme d'urgence bi nga xamante ne teg nañ ko rek daal muy insertion sociale économique et l'emploi des jeunes maanaam xëyub ndaw ñi ak li nga xamante ne rek daal fexe ba ku nekk jot sa àq ak sa yelleef ci réew mi le tax na ñu tëral ko. ci ñetti at entre 2021 ak 2023 ñu mën ko xayma ci koppar ci lu toll ci 450 milliards ci suñuy koppar maanaam 150 milliards ci at gune waaye tamit ci ay règlement yi ñu daal di jël l'obligation ak ni ni mel moo daal di yóbbu mbir mi mu daal di adapté wu en 2019. wax ci dolli ci ab koppar gi nga xamante ne ñu ngi ko woon jëlee bitim réew en 2011 mën nañ ko cee xayma ci lu toll ci 726 virgule 154 milliards ci suñu koppar. tëkkale koog 2020 gile mën nañ wax ne am nañ li ko ëpp fuuf mën nañ ko xayma ci lu toll ci 1311 virgule 6 milliards ci suñu koppar. maanaam mbir mi augmenté na ci ab somme bu toll ci 585 virgule 446 milliards ci suñu koppar ndax yokk ci valeur absolue muy 80 virgule 6 pour cent maanaam valeur relative. mbiru budget bi moom ab yokkute rek lañ ci daal di gis ci nguurub Macky Sall mile ñu xam ne. 2452 milliards en 2012 ci nguuru Macky Sall mile mën nañ ci lim ci lu toll ci 5556 virgule 7 milliards ci suñuy koppar maanaam loi finance bi dafa basculer ba 2022 maanaam mën nañ cee xayma ab yokku bu tollu ci 3104 virgule 7 pour cent milliards ci suñuy koppax maanaam li nga xamante ne moom mooy loi gile la yëpp luñ ko daal di tënkee muy ab yokkute dong la ñu daal di seetlu ci budget gi bu ñu sukkandikoo ci PSE plan Sénégal émergence moom itamit impact favorable gi mu daal di indil réew mile ñu mën ci lim ci ay financement yu ñu daal di génne ci lu toll ci 14 261 milliards ci suñu koppar waaye tamit en 10 ans maanaam ci nguuram gile Macky Sall année bu nekk daf ci yokk ci lu toll ci 1456 virgule 1 milliards année bu ne ñu tëkkalikook li nga xamante ne moom mooy 3789 milliards ci suñuy koppar en 2012 bi fi Abdoulaye Wade nekkee waaye tamit xaymawaat ko ci 316 milliards ci suñuy koppar ak gu jot kon nag muy ab équilibre bu doy waar ci ailleurs ci tableau gi la ngeen di gis ñu mën a xam ne montant yu changé yépp ma nga ca ñu budgétisé yépp maanaam total gi yëpp mën nañu wax ne soit un total de 152 milliards 984 millions 119 mille 934 francs CFA muy yokk ci conte état gile ñu daal di constater ni ni mel ab financement gu daal di voté ci budget parlementaire gi maanaam koppar gi yokk ci état Sénégal dafa jéggi dayoo. mais ci ay gestion yëpp yi ñu daal di lim ci ay faay ak i dette yoo xamante ne mën nañ ko cee nemmeeku loolu yëpp daal mën nañoo firndeel le président Macky Sall mii mu ngi promouvoir ak transparent bépp koppar gi nga xamante Sénégal manqué na ko wala dana ko ami waaye avec transparence lépp daal ci njëlbeen waaye tamit ci ab dynamique vertueuse ca la ñu mën a xam ne budget gi lay doy caaxaan ci mbirub lebalante gi maanaam endettement fu ne nii nee nañ Sénégal c'est un pays très très endetté maanaam ñun ay bor kese lañ ñu mën a sukkandiku ci évaluation gi ñu daal di def maanaam ab politique du Sénégal bii ngir rekk daal mën a wàññi loola. ñu sukkandikoo ci en 2020 ñu ngi amoon ci lu toll ci 78 pour cent ci BIP lépp ay bor dong la maanaam ci plafond umoa e ñu ngi amoon fa aussi 70 pour cent. waaye tamit ci yeneen service d'endettement ay 26 virgule 9 pour cent waaye tamit ci ay recettes budgétaires ñu dem ci 2006 Sénégal mujj wàññi ba ci lu toll ci 21 pour cent ci BIP lépp ci ay endettement en 2011 mu daal di yokk ñu mënoon ko xayma ci 40 pour cent soit point points d'augmentation maanaam intervalle 5 ans Sénégal yokk na ci ci lu toll ci 39 virgule 9 pour cent ñu jàngat entre 2012 ak 2021 ci taux d'endettement bi nga xamante ne dafa daal di passé de 42 virgule 3 pour cent ba ci 64 virgule 5 pour cent ci encours de d'endettement yëpp fin décembre 2021 ñu mën a xayma somme gi yëpp mu ngi toll 10 297 virgule 5 milliards de francs CFA ci xayma 2 673 virgule 30 141 milliards de francs CFA ci ab d'endettement intérieur waaye tamit ci 7623 virgule 31 milliards ci budget maanaam dette extérieure kon mun nañ wax ne maanaam alal gi ak koppar gi yëpp fi ñu gën a mën a xool wala sax fi ñu gën a mën a suñu gët ci lu gën a am importance muy dette extérieure maanaam foofu moo war a am ab jàngat gu mucc ayib gi ñu fa daal di am te itamit lu ñu daal di xayma ci loolu yëpp muy 74 virgule 3 pour cent ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy masse salariale maanaam masse salariale bi fan la yemoon fan la commencé ak fan la yem ci li nga xamante ne mën nañ ko xayma ci nit ki lu muy jot ci entreprise ga masse fii ci mim réew mën nañoo wax dafa néew waaye ci ab jàngat gi ñu daal di def ñu xam ne fi mu jóge ak fi mu daal di àgg 2012 mën nañu wax ne ay dépenses personnelles maanaam rek daal mën nañ ko situer entre 428 euh, milliards de francs fa maanaam mën na àgg ba 482 milliards en 2014 mu yokkaat en 599 milliards en 2017 waaye en 2021 mu yokk ba 903 virgule 996 milliards de francs CFA ci ab économie masse salariale gi ñu daal di jàngat maanaam année gu nekk day daal di yokk surtout ci secteur éducation formation professionnelle ak ni ni mel loolu yëpp daal mën nañ ko xayma environ ci lu toll ci 603 virgule 923 milliards en 2021 itamit ñu mën a représente lépp lépp en pourcentage ci lu toll ci 67 pour cent ci montant total ci secteur force de défense et de sécurité eh, ci lu toll ci 21 pour cent ci secteur sanitaire maanaam santé mbiru wér-gu-yaram ba 5 pour cent eh, ci secteur sécurité ak justice 3 pour cent ci yeneen secteurs yi ay 30 ministères ak i institutions yëpp yëpp mu ngi représenté 9 pour cent waaye tamit lépp ci masse salariale. àddoo ci wàllum infrastructure maanaam lu jëmee ki yoon ak ki ni ni mel ci lu tollu ci deux mille cinq cent vingt six kilomètres ci ay yoon la ñu daal di construire ñu mën ko xayma ci deux cent cinquante deux virgule six kilomètres par an maanaam at gu jot. nañ defar ci ay yoon ci lu toll ci deux cent cinquante deux virgule six pour cent saa maanaam en douze ans ci ab rapport document gi ñu daal di indi mën na ko double. maanaam son excellence Macky Sall lim fi daal di fekk lim fi daal di yokk ci xayma. en deux mille vingt ba 2011 liñ fi daal di gis muy 1678 kilomètres ci ay yoon yi ñi daal di woon defar maanaam 131 virgule 5 kilomètres par an xamante ne mooy réew mi la muy Sénégal 32 kilomètres autoroute rek la amoon fum mu ne nii defar nañ ci lu toll ci 189 kilomètres ay autoroute kese ci wàllu pont nag defar nañ ci lu toll ci 20 pont ci intervalle 10 ans maanaam diggante 2012 ak 2021 ci li nga xamante ne onze points dong moo fi nekkoon en douze ans ci ay piste de déclenchement yi nga xamante ne defar nañ ko ci li toll ci 6673 kilomètres de piste lañ daal di defar soit 667 virgule 3 kilomètres par an maanaam at gu jot loolu la ñuy daal di defar liñ fi fekkoon muy 416 kilomètres moyenne annuelle en 2012 ay infrastructures ferroviaires 38 kilomètres lañ daal di defar ci ay voies ferrées ci intervalle 2012 ak 2021 ci infrastructure portière onze tirant do lañ daal di defar ci intervalle 2012 ak 2021 tim ci wàllub courant gi maanaam rek daal l'énergie puissance électrique gi nga xamante ne installé lañ ko dafa daal di sax triplé maanaam mu daal di dépassé 573 000 watts nekkoon en 2012 ñu yóbbu ko 1616 virgule 41 000 watts en 2021 muy valoriser rek li nga xamante ne moom mooy amélioration accès électrique yenn zone urbaine yi itamit ci ay villages yuñ ñu daal di ci lu toll ci 2202 nouveaux villages yi nga xamante ne yóbbu nañ fa ak courant te niñ ko fekkee woon muy 84 villages dong ñoo ko amoon ñu xayma ko rek daal plus de 5 fois ay village yu ñu daal di waaye tamit mu mën a nekk rek 24 pour cent mu jóge en 2012 mu dem 59 pour cent en 2019. mbirub couverture des maladies universelles maanaam CUM li nga xamante ne rek daal moom mooy programme gi fi daal di teg loolu nag dafa daal di permettre mu couvrir quasi totalité de la population ci wàllu wér-gu-yaram ak ni mel ñu xayma ko. li nga xamante ne moom mooy assurance maladie à 20 pour cent bu dem ba 75 pour cent mobilisation ci ay ressources ñu daal di woon nemmeeku ci 118 virgule 463 milliards ci suñuy koppar entre période 2015 ak 2021 loolu nag mu permettre ak ay mutuelle de santé yu bari ñu xaw a suqandiko ci yooya ba tax na ay contrôle ñuy daal di def tamit ak yokkute nit ñi nga xamante ne dañ doon bénéficier wu ci loola ci lu toll ci 2 469 804 bénéficiaires yi nga xamante ne rek daal ci 1 482 942 membres yi nga xamante ne ci ay ménages lañ daal di nekk maanaam ci ab programme national de bourse de sécurité familiale yi bokk nañ ci. ay carte d'égalité des chances moom ëpp na ci lu toll ci 64 728 cartes yu ñu daal di joxe entre 2013 ak 2021. waaye tamit ci lu ëpp solo muy ay xale yi nga xamante ne bénéficié wu nañ ci ay soins gratuits entre 2012 ak 2021 waaye ñu mën caa xayma ci ab somme bu toll ci million millions d'enfants yi nga xamante ne bénéficié wu nañ ci loolu te itamit seen at c'est entre 0 et 5 ans waaye tamit ci ay jigéen yi daal jël en charge ci lu toll ci 11 321 femmes yi nga xamante ne jël nañ leen gratuitement ci yenn pajin yi waaye tamit ay kaa xale yi nga xamante ne daal nañ ko jël mu ngi toll rek daal ci deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-cinq cas ay xale yi nga xamante ne jël nañ leen ñu faj leen gratuitement te fay ñu dara. yeneen i fajin yi nga xamante ne Sénégal def na ci matuwaayam gu mucc ayib fi ko jëlee ak fi ko daal di yóbbu. ci mbiru programme insertion des jeunes sur les emplois maanaam rek daal programme xëyub ndaw ñi ñu def ci ab liggéey yu mucc ayib. depuis booba ñu taxawal rek daal ay commission yi nga xamante ne ngir bépp gone ak fu mu mënta doon ci mim réew nga dem rek daal ci gox gi nga daal di nekk ñu insérer la fa. na rek daal ay formation professionnelle yi ñu lay daal di méngaleel boo dikkee formation gi ñu lay daal di amal te itamit li nga ciy daal di fay du bari ndax ab bourse ngay daal di duggee waaye tamit mbirub xëyib ndaw ñi. ci ab titre de gestion en 2022 ci programme xëyub ndaw ñi dañoo daal di génne ci lu toll ci 150 milliards teg ko ci table gi ngir rek daal ñu xool niveau d'engagement yi nga xamante ne dañ ko ci teg ba noppi ñu jël ab date ultérieure 30 juin 2022 ñu def ab ressource d'extérieur maanaam rek daal ñu wàcc ci ci lu toll 86 milliards li nga xamante ne rek daal mën na engagé ci ab taux d'augmentation de 58 pour cent ci ab engagement waaye tamit ci ak poste de recrutement opération yi nga xamante ne ñangal na ko ca lu ci mel ni recrutement gendarmerie adjoint volontaire recrutement des auxiliaires de police recrutement des 5000 enseignants tenue scolaire volontaire de nettoiement emploi des jeunes stagiaires emploi des jeunes animateurs socio-éducatifs volontaires de la santé emploi des jeunes aussi promotion touristique convention état employeur agence de la reforestation et de la grande muraille verte ak li nga xamante ne moom mooy entretien courant des route non classées emploi des jeunes programme de reboisement emploi des jeunes euh, projet d'aménagement des fermes intégrées emploi des jeunes euh, fonds national pour l'entrepreneuriat rapide DER euh, projet d'appui au programme sénégalais pour l'emploi des jeunes PSJ ak yeneen i xëy yi nga xamante ne mettre nañ ko en place dimbali ndaw ñi ñu mën a jàpp ci dara en définitive ci bilan gi nga xamante ne réalisation physique ak financière bi nga xamante ne monsieur Macky Sall amal na ko mën nañ ko résumer comme benn ci rattrapage infrastructurel ak ci li nga xamante ne moom mooy autosuffisance alimentaire en marche une équipe territoriale ak une forte inclusion sociale ci munu xayma ci ay perspectives yi nga xamante ne mën nañ ko woowee politique publique gi mu daal di mettre en place ci ay domaines yu bari maanaam mbirub wér yaram en santé lu ñeel ndaw ñi jigéen ñi ak ñeneen maanaam les jeunes les femmes et le genre lu ñel équipe territoriale l'agriculture et l'élevage maanaam mbay mi ak napp gi l'éducation et formation njàng ak njàngale gi le transport dem bi ak dikk bi l'accès à l'eau et à l'assainissement ndox mi ak dëkkuwaay l'industrie maanaam yenn xarala yi l'urbanisation et cadre de vie mbirub dundi nak nekkin la défense et la sécurité mbirub karange yeneen i ak yi nga xamante ne def nañ fa liggéey yu mucc ayib fiñ ko jëlee fiñ ko yóbbu ak fiñ ko jëmee réalisation président Macky Sall ñu mën koo gis ci ay fànn yu ne maanaam foo laal rek dugal na fa loxoom te lim fa fekk fi ko yóbbu doy na waar waaye beddi gis bokk ca bref aperçu des réalisations du président Macky Sall ci ay barème ci ay termes ak i chiffres am lu nit wax am na fim ko teg Olof Njaay nee na lu ne fàng kenn du ko jeex dub koppar gi maanaam budget l'endettement dañ ko ci wax li nga xamante ne moom lañ gis muy masse salariale gi yépp mën nañ ko ci gis itamit sécurité sociale réalisation yi mu daal di def politique d'inclusion sociale ak li nga xamante ne moom mooy collectivité territoriale perspective bu ne perspective par axe stratégique image tali maanaam ay yoon yi mu daal di defar dëkkuwaay aménagement de l'habitat stade des autoroutes la terre BRT des hôpitaux des entreprises le grand projet de Diamniadio stade multidimensionnel des infrastructures à couper le souffle. Telles sont les réalisations du PSE, Plan Sénégal émergent. Monsieur Moustapha directeur général du budget moom moo listé li nga xamante ne moom mooy réalisation président Macky Sall et de Benno Bokk Yaakaar